ab benn bokku yaakaar laa la wax mu ñu ngi foofu ñu xamante ne ñoo téye fii Californie ñu ngi foofu parce que munoo munoo jiiñ nit ki viol sambi wax bu egg dofaa ko moom li ma wax leer na waa benn bokk yaakaar xam na li may wax parce que man je ne sais pas comprendre d'abord nga jël doomu jàmbur jëlee ko Europe indi ko fii nga ne da nga koy jox passeport diplomatique Macky Sall bu buggee jox passeport diplomatique eh, kii Californie matin au soir mu jox ko ko nañu waxante dëgg. mais na ci dëggu ma jotul dara. dara la jotul gis nga déglu ma leen déglu leen ma xam nga man mënu ma comprendre man kenn du ma saaga ndey pendant ay weer ngay saag sama ndey man ma ñëwaat ma a damaa jubo ak yow est-ce que loolu juboo boobu c'est vrai nañu waxante dëgg quand même nañu bàyyi di laame-laame wax ji dama ne pièce moo fa nekk man maa ko wax te zela asim dama ko wax Kaliphone bu may dégg bu ko yàlla mayee jàmm ba mu génnee fii na génne ci Macky Sall li may wax leer na parce que mënu mu comprendre loolu nga saag doomu Adama ay weer moom mu ñëwaat mu ne dafa jumoo ak yow jékki-jékki mu ne la kaay Afrique dinaa la jox passeport bi fu la la neex nga dem ba nit ñi tuumal Macky Sall ñu ne dañoo bloqué Californie ñun ñëpp wax nañ ko fii réseau soso ñu ne dañoo bloqué Californie Californie génne ci kanam ñëpp mu génne ay passeport am ba muy woote agence di jënd billet bu ñu jox ko rendez-vous mardi mais Californie bu naree jënd billet kay dem mardi kay bu dee loolu dëgg la bi c'est valable lan moo ko fekkee fi boo problème viol bi ñëw fekkee ko fi nañu waxante dëgg. mais moom moo ñu leeral ne ay chantier moo ko fi bàyyi. ko fii xam nga man dama lay jàppale. ne ci kaw dëgg dama la ne man dama lay jàppale. kon Kaliphone waxul woon dëgg. sama dama ne Sembi bëgg nga déglu man du ñëw taxaw ci média moo ma indi dama ñëw pour soutenir ko. en tant que doom sénégalais la citoyen la. te damaa jàpp ne victime la ki ñuy ne victime kooku du victime. Kaliphone mooy victime parce que Kaliphone président moo ko jël Europe indi ko fii tey lii dal ko lan la war a def même bu dee waxu ci man waxuma président jàppale Kaliphone waxuma loolu mais Kaliphone yow man maa la indi pour ma jox la passeport am sa passeport ñibbil parce que même bu dee du problème bi mais Kaliphone mu ngi Sénégal mu ngi en risque parce que waa Sonko bu ko amoon ci mbedd bi dañu koy rey Colobane fii Colobane fii du du nañu ko fii ñu bugg koo dóor ak otam Colobane fii ci marché Maguette bi kan moo kan moo ko gisul mais nañu waxante dëgg Kaliphone fu mu nekk nii du Adja Caaray aw ma Adja Caaray nan du waa Sonko waa Bennoo Bokk Yaakaar ñoo ko téye wax day leer nag. lan moo tax mu tudd ci Gabriel Kane. Gabriel Kane man loolu ñoom la concerné. Mhm. moi je ne connais même pas qui Gabriel Kane parce que man sa sa liggéey sa liggéey la dama la ne man damaa bokk benn parti ku ma gis tey xam nga ne man PDS laa gëm ma leneen man je suis de Karim kon tey gi ni Gabriel ak Kalifon euh, ñoom ñoo xam parce que man gis naa ne Kalifon seer seeram moo nekk Gabriel parce que gis naa ñu ngi fréquenté du benn du ñaar du bokkul live ñoom ñaar di toog kër ñoom eh, Gabriel ou bien bureau Gabriel di def live kon tey ni problème Adja Thiaré bu ko indee problème seen diggante loolu ñoom la concerne man sama yoon na ko ci mais kantaan sama calcul bopp ak li ma gis fii Kaliphone fo mu tëdd fii waa Benno moo ko teg fii du keneen nañu wax mu jeex. sëñ bi fàttali nañu avocat du commune de Neteboulou loolu sama surnom la ci internet mais Mohamed Sidibé laa tudd. merci Mohamed Sidibé laa tudd na leer. waa benn Bokk Yaakaar je l'assume. Ah. yéen ñoo téye fii Khalifa maa ko wax. mais yow comme que tu es de Karim est-ce que bëgg ngeen amnistie tamit loolu tamit c'est à bon là. Mhm. parti bu ne dafa am sart. comprendre nga ñun suñu parti dafa am sart. Mhm. suñu sart mooy lan mhm. lépp lu xew dañuy déglu suñu kilifa muy suñu secretaire général national muy maître Abdoulaye waat ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér. mais tey jii nii man à ma personne man waxuma keneen de. nit ku ne lu la concerné ngay wax man bu ma amee si ma jël. bu ma amee atte lu leer ma jël ndaxte Karim dafa am ay doom am famille fii nii Sénégal fii am na fi ay nawle am na fi ay mbokk te ñoom mu ñu dem Doha di ko seeti mhm. kon bu ñu amee ambition ñu jël te Karim Wade ñu ngi interpellé état bi ñu si mun a gaawee def bu ñu libéré Karim mu ñëw nañ ko libéré mu ñëw loolu la ñu wax parce que Karim bu fi nekk opposant amutul fii budul.